عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق Yo voy a ir, yo voy a ir, yo voy a ir. wala ma jox la suma bos. ku dabaat rek. Au lieu bu leen jàll ba mu nekk bu sëriñ bi bu sëriñ bi Baay Baay jëmm jooju nag lañ ñëw ay xéewalam ay tëbbinam ay mayam nga xam ne du dagg mukk ndax la rus naa def teraanga ak barke ak naataange nangu ñaan ba ñëpp ñam mu jël ko mu ne teraanga jooju bi la ko yàlla ci Taïba Niassène waaye bi mu ko fi law na adduna bi yëpp jooja yemalatoon ko ci mbokkam yemalatoon ko ci ay dëkkandooram yemalatoon ko ci ay am di jàmmam waaye dafa jub ne teraanga ji ma yàlla jox warta yem Tayba warta yem Tayba waaye warta yem Sénégal war a law waaye dafa war a law ci àdduna bi yëpp yàlla ba mu yónnee yonent bi ne ko ma arsalnaaka ila rahmatan lil dama laa yónni nga nekk yërmaane ñeel mboolem bi def yàlla yi waxul ko ñun Quraysh rek de waa wala ñun Makka rek de wala arab rek de waaye yërmaane gi dafa tasaaroo ci àdduna bi bu agsi bi Sénégal ki nga xam ne nag moo ko donnu nit nag boo ko donnoo waroo bàyyi daraam ku nekk xam na ne Baay dafa wax ne isa saara xayru naasi surtout waraahu fa in xalla yowman farmasiru baayin aju dem gi muy yonent bi bu doxee rek ma dox ànd ak moom te ànd boobu ak dox boobu du dagg ba tax na Baay mission yonent sallallahu alayhi wa moom la ñëwoon mottali si moom mbaay moo tax mi dafa law àdduna bi yëpp wax na ne alawtu bi haara zahirati way na nii alawtu qura wan mut jibaara ñu ne ko ndax lan arumu baari li nusrati diinihi wa ursili diinihi jadidi misaada ci taataan ci xéewal googu ñu ngi ñaan yàlla seen ziyaara bi muy gàmma Tayba Ñaseen di mawlud 2020 yal nañ ko fekkee ñu yàgg koy fekkee ay at bu bëree te at mu jot yal nañu fekk ci anam yi gën a baax ci gën a na mu ñu seen ziyaara kenn ku nekk bëgg-bëggam ak càkkuteefam ci zahir ak ci baatin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam